ليس الذكر ممن يجشمن أذا دغارا جلانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الصمن أذا دغارا بشانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الصمن نبضنا بعدل الإيمان فالدرب الجميع من أماني أبي سنابي وبالإسلام فانتفع كل المرامين خدمت سيد البراء يا أحمد والأنبياء والشيعة من مدى خذ الشراعة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبدان إلى نبي خذ الشراعة والسلام والأنبياء وفي منشد الكلام على نبي محمد والآل سل وسلم واسند سؤالي للمنتقى ما يسور بلا نهاية وقدمتي تقبل يا ذل سيد الورى مختارا يا باقيا جاله مختارا نافع سلم وسلم في أبد ألا الذي لك يقود من أبد bu loolu jàllee dëre bi mooy dëre bi nga xamante ne bi mooy saxadatu daare boo xam ne sëñ Abdou moo ko sosal boppam tënk ci donga yëpp Touba Belal lañ ko daan jàngaloo bi nga xamante ne bi mu ngi ko sos turam moo ne ca kaw yaakaar naa it tur boo xamante ne dayra boo xam ne sëñ bi laata ne ca kaw bëriwut a gis mooy dayra bii nag toujours ma ñu ngi ci kër gi ba bëccëg mooy ahlu tarbiya yi di jëf ñoo yore wàllu waañ wi di ci liggéey liggéey bu mag ànd koog beneen dayra bu ñuy wax Masaalikul Jinaan boo xamante ni kuñ daan wax baayam liggéey moo ko jiite woon kon nag bu loolu jàllee ñoo ngi fii ci waañ wi daal di fi góorgóorlu di sàkku xéewal rek ngir liggéey bi jëm kanam kenn ku fi ñëw ku ne nga bañ fee am ay jafe-jafe li nga bëgg mooy wàllu xéewal yi yëpp doy loolu moo ñu fi bàyyi moom lañu fi sëñ bi bàyyee di dégluwaat yéen kàddu ba xam. daayira bi ndax mën nañoo xam naka la nosoo bay liggéey liggéey bu am solo bi tey ci bis bu tedd bi. daayira bi ni mu nosoo mooy li ma la waxoon sama kàddu gu njëkk sëñ Abdou laat ci boppam booba ñun wàccegun biñ nekk daara ji lañ ko sos booba ñun wàccegun ñii ñëpp boo wàccegun ba ci Abdou Diouf ma ba moo nekk président bi booba donga bu ne ndax donga lim am bëriwut donga bu ne ñaar téeméer lañ ko doon def ba léegi mi ngi kenn ku ne douze mille buñ pooree boole kook social yi léegi nag boobaa ak léegi déedéet bi kanam rek la jëm amul am na tànki am na tànki kanam waaye amul tànki ginnaaw waaw boobu ba léegi nag ci loolu ñu sëñ laa tënkan ci lañ nekk boobu bi ñu wàccee taxul ku wàccee taxul nga bàyyi ñi ngi toole it ba tey ñu ngi ci bokk ñoom itam bi ci nar nari déedéet bi daal boo bëggee dégg dégg lu ko gën a am njariñ ci kër gi gisuma ko fi ndax moo fi yor taxawaay kër gépp ku ko nangoo ku ko nangu lépp dëkk moom kër gi moom taxawaay bi moo ko yore te sëñ xam na loolu ndax ñii ki nga xamante ne bii ku muy teral ba ñu ko joxee ba mu jeex bokkut ak ki nga xamante ne bii bu lay teral gën laa bëgg la lay terale te sëñ Blaat moom ku ne xam na ni moom mi nga waxoon ni man gan ma nga tàmbalee ca boole raxas ndax boo ko joxee mu raxas mu raxas raxasal ma téel bi nee na gàccaa nga ko kon nag ñun ñu ngi sax ci ndigalam yooyu rek di topp di ko xeeñtu mbiram di ci nab nabi ñu teeluwaat yeneen kàddu ba xam jërëjëf ñu ngi di la gërëm comme dafa baax na lay des ci kàddu ñu àggal xam naa bu fekkente ne maanaam ci yeneen euh, gox yi man moom sëñ Sidi laa tërbiyewu 73 laa fa dem ba suñu jonni tey bi ma yeewi ko it juguma ci kanam benn yoon waaw léegi nag bu loolu jàllee ñii sëñ euh, sëñ Abdoulaye Guèye mii ak sëñ Pam njaay ak sëñ Fall mii ñoo ŋànk liggéey bi ñoom tamit mooy déréb bi ma la wax euh, déréb bi ma wax ne Masalikul Jinaan ñun ñooy déréb waa ci déréb maanaam sans bi ñoom ñii ñi ngi takk taxaw takk taxaw ni maam ñoom ñoo ànd ñuy jëlandoo di dóorandoo lu fa xew ñu jërëjëf ak dum salatan li jamiil anbiyaa وارجي به تسليمي واذكر كبياب نادي أصلي وأسلم به كرام على نبي وعلى آله وصحبه كرام شراد ذرة نسيم سمدي على نبي وآله ومحمد رد مكائد الهدى إلى الهدى يا من أبعدي بمقدر إذا أوجه لكل مسلم ومسلمة معشرة يا من كفاني سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوجه البزارات لسبي مدمنة مدى لكل محسن ومحسنة على بزارات كرام مستحسنة ودينهم مج رسول الله ألي غير شلوات الله madada man mata yaqul kun yakuni jaare ngeen bokk ci soxna yi taxawu waañ wi lan mooy dëgg-dëgg taxawaayu soxna yi fii tey ci ci waañ wi bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbooloo mi ñoo leen di nuyu di leen siyaar ñun bokk taale bi ñu de daayira bi biñ ko tàmbalee ñoo ngi ko tàmbalee woon si ñaar téeméer ak ñeent fukk di ko liggéey di ko jébbal sëñ Sidi mu ñu woo leen bu ngeen ko dee jébbale dee indi daayira bi jébbal si ma ko ci sama kër ñu dem ca kër ga di ko ko jébbal mu am ci kontaante lool buñ ko yóbboo daayira dajale ko ab reer lan daan toggal daani jox pañe gura ni yóbbu leen ko bu ngeen demee ngeen barkeeloo ba léegi sii nag liggéey bi yëpp mu jël ko teg ko ci suñu loxo doy loonu lool nag lépp ci suñu loxo la ko teg lu manqué ñun lan koy wax lépp ñun lan koy wax lu doy ñun lan koy wax ah du suñu baax nag ñu ànd ko ak sunu ndok ndongo yi nga xam ne ñoo doon liggéey Cheikh Abdou seeni seen baay yi doon ko liggéeyal. waaw so taxawaay soxna yi ci waañ takk suñ laxasaay rek ñoo ngi ko tàmbalee talaata ba ba alxemes ba àjjuma kenn bëggul dara. kenn liggéeyatu dara lu sëñ bi rek moo nu ñor ay bernde waaw togg yi daal moom ñoo yor ndugg mi ñoo yor togg yi lépp ñoo koy taxaw dépasse bi ñoo ko yor teg suñ pomme de terre ak suñu yëpp suñu bagage gan gu fi ñëw rek ñu bëgg nga lekk ba suur naan ba maa ngi. mu nekk liggéey bu métti jafe nag ngeen seq ko ak tuutànk loolu la ñu seq ko suñu tànk yi baax ñu suñu xale yu góor yi di suñuy doom. yi ëpp soxna yi ci côté soxna yi ngay soxna yi soxna Maram mi ko jiite woon. léegi daay daayira dafa yàgg mag na ba tële. ak Baye Amdi Gaye mag na tële na ñëwatul. sama wujj bi di soxna Awa Ja mooy yéen a ngi ko bokk ak seeni goro ak seen i doom lan nga leen di soññ de ko bokk ak suñuy goro ak suñuy doom jàmbaar boo koy liggéeyal jàmbaar boo ko dee liggéeyal doo sonn doo tàyyi doo xoole nga dee defoon da ngay fas yéenee jëm kanam fas yéenee avancé fas yéenee loo liggéey bu subaabu de dee bu dee boo riwee nii nga yokk la nga defoon ñun duñu sonn dunu tàyyi duñu noppul ñu ngi ko ànd ak suñuy doom ak suñuy sët sax nag ndax daayira bi yàgg na trop booba léegi nag nin jàppoon ci lañ jàpp fas yéenee saa buñ xëy ñu yokk ndax saa bu ñu jébbalee suñu jàmbaar ji yokku na jaajëf ñu gën a kontaan suñu xol gën a sedd guy yéen yéen yàlla na ngeen fi yàgg ñëw yàgg ñu fay fekk ci barke sëñ Touba ndax yéen doongay sëñ Touba ngeen da ngeen di liggéey sëñ Touba yàlla na ngeen yàgg loo te wér